ko ji affaire jël la teg la ko musul am façon nomination boobu am mm-hmm. de Babacar Diagne ñëpp a tàccu Babacar Touré ñëpp a tàccu Babacar Touré ak Babacar Diagne duo bi mujjee dem li ñu naan un DG pour encaisser un autre théâtre boobu mooy feeñaat ci bii Babacar Diagne du fi fay mm-hmm. mais Mamadou Omar Ndiaye mais journaliste yi muy yéen mm-hmm. ni ngeen ko defee démb fii ak Binta muy doyen yi ñëpp war a jug taxaw parce que Mamadou Omar Ndiaye mii place du Sénégal place Mamadou Oumar Ndiaye mooy ñoom nañ ko dem jox ci seen agence yi ñu dem seeti ko def ko leneen yow soleil tey ñu ngi fa yóbbu un militant de jot na mm-hmm. mooy ah. pour la première fois de l'histoire ñu jël soleil yóbbu fa un militant mm-hmm. jël APS jox ko ku leen doon fa favorable mm-hmm. retourné waat après lu ñu def RTS ñu yóbbu fa Pape Alé RTS dellu ginnaaw maa ngi dégg ñu naan TDS ñu yóbbu fa xale boo xam ne nii ci ci stagiaire la woon. Mm, musul def benn expérience. mais RTS moom daanu na moom. RTS daanu ba gis dama gis ku def sondage. Mm. ne ne Aram Touré Kénkeliba fañ ko yóbbu dafa cité. non Kénkeliba daanu tamit. dafa cité une heure ñi kañ fa yóbbu mu nekk dof bi doon sarab lii. yóbbu ko sarab mu mu inventé Salimto yàq sax wayu Salimto ba. valeur Salimto ba mu amoon ci sénégalais yi bu une heure doon jot nga xam ni famille yëpp dañuy dajaloo. Abdou Diallo yërëm ma. ñu teg fa waa ji doon sarab lii xam nga ku dem RTS doo fa yóbbu koo xam ne dafa doon dafa doon terroriser lu ñaaw. nga yóbbu fa li ma wax ne kañ fa teg Pa Assane. Mm. ànd ak ñoom Pape Diouf ak musiciens yi loolu la gënoon a mën. parce que du journaliste moi je on apprend rien de lui. Mm-hmm. li Sénégalais yi retenir ci moom mooy sarab lii sarab lii ñu yóbbu la à RTS. amuñu lenn lu ñu xale bii daal léegi ñu yóbbu RTS dellu ginnaaw ñu teg fa Pape Alé hmm. ñu jël su kiiw médium kiiw presse yi am doole yóbbu fa seeni i militant hmm. yóbbu fa seen i agent hmm. léegi nag assise de la presse yi teg sur les tiroirs nga xam ne Babacar liggéey na ci ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom euh, euh, kii beneen waa ji te après sax commencé woon na leen rogo jeeru est-ce que soxlawul woon CNRA bi mooy ancien DG RTS bi Wade indi woon bu éphémère bi. Eh, kii eh, te te njabootam moom Label TV. Eh, moom ñoom ñoom ñoom kii kii Makhtar Sylla la Makhtar Sylla xam nga indi woon nañ ko ci assises yi. mu def discours jékki-jékki fin bi. rogo jeeru commencé rogo jeeru. moo tax gis nga ñoom Ibrahima Lissa ñoom ñëpp bi Mamadou Omar bi génne dafa mel nañ leen mbéj. non parce que kenn xaaru moom parce que kenn xaaru ko woon on pensait que dinañ rajeunir dinañu xalaat ñoom bamba gis après ñoom bamba sax dañ def pédale douce beneen saa ñoom bamba écran yi dem assise yooyu yëpp dañu def pédale douce mais Ibrahima Lissa quand même au moins li mu doon xeex ci arca bi mu ñëw organiser moom vraiment de vraiment xeex na ci arca moom sax te benn moment gën naa ni ni li mu doon wax pour que ñu indi arca mm-hmm. xoolaat réseau bi loolu dama gën ni combat bu noble la woon mm-hmm. man buñ foo indi woon Ibrahima Lissa ma ne au moins mm-hmm. bi muy nekk ci camp camp bële ne di attaquer pouvoir bi arca bi la doon teg sur la table que dafa jot ñu indi ko. Mhm. mais bi ñu indiwaatee li moom Ibrahima Lissa bi ñu nee nañu rax nañu raxas presse bi moo njëkk a taxaw ne leen. texte yi jaarul yoon man jàppoon naa ni combat bu parce que tey audiovisuel yi presse en presse en ligne bi. Mhm. mooy problème Sénégal. mooy problème bi tey. ar kii bàyyi tenir ko en compte sénéra te campagne bi ñu jëm moo fa nar a ëpp doole deuxièmement mooy audiovisuel lan la ci Mamadou Oumar Ndiaye xam te dafa am bill dafa am Zeynab Sangaré bi démissionné récemment ci témoin ci Mamadou Oumar Ndiaye dafa bind benn texte daa di ne man dinaa bàyyi pour des